يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين sayyidina wa xabibina wa shafiina wa wasilatina ila rabbina mabuusun rahmatan lil aalamiin wa ala wa saxaabatihi ajmain amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci seen podcast bii di al adab di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yokkal ñu wér gi ak tane gi yokkal ñu tamit mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit yi suñu mbokk yi ñëpp yu nekk ci jàmm ginnaaw loolu ñoo ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala bu ñu mayaatee xéewal mi nga xam ne moom nañuy fekkee podcast bi kon képp koo xam ne bëgg nga suivre suñuy podcast am na yu ñu jot a def ci Al Adab mun nga ñëw suivre ci plateforme yi di YouTube mun nga ñëw suivre ci euh, Instagram Twitter TikTok et cetera donc mboolem réseau sociaux yi. naka noonu tamit képp koo xam ne bëgg nga jàpp ci projet yi mën nga ñëw contacter incha allah tey seen émission Al Adab dafa indi bunt bu am solo bunt boo xam ne ni amul bunt bu ko gën a rëy ci lislaam te mooy lan al axlaaq bunt yi nga xam day waxtaan ci jikko yi ndax ñaar la premier bi mu may al axlaaq moom mooy jikko yi mooy buñ ci waxee nag al axlaaq moom mooy jikko yu baax yi moo tax ñuy wax mu am sifaatul mazmuum mooy jikko yi nga xam ne dañ koo ŋàññi wala melok yi nga xam ne dañ koo ŋàññi kon incha allah podcast bi euh, wala yii di ñëw ci loolu la ñuy waxtaane al axlaax mooy jikko yoo xam ne ne jikko yu rafet jullit bi dafa war a fexe ba entourage am di yëkk di sentir li nga xam mooy jikko bu rafet ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax wa xaaliqu naas bi xuluqin xasan na nga tasaare na nga wasaare ak nit ñi sekk ak nit ñi ci lan ci jikko bu rafet moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tabaaraka wa taala bu mu koy tagg da koo tagg ci li nga xam ne moom mooy jikkoom wa innaka la ala xuluqin azim yow jikko yu rafet yi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaa yaa leen féete kaw waxuma sax yaa nekk ci biir waaye yaa leen féete kaw kon lool da nga ciy dégg ne jullit bu nekk comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy royukaayam jikko yooyu la xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo ñëw indi ko ne dama ñëw ngir mottale li nga xam ne moom mooy jikko yu rafet yi kon da ko war a roy ci loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne maa shayun asxalum fi fi misaanil mumin yowmal xiyaama mu ne amul dara loo xam ne ne mu gën a diis ci li nga xam ne ne mooy balaasu jullit bi yowmal xiyaam min xuliqil xasan ci jikko bu rafet kon jikko bu rafet dafa nekk loo xam ne ne day diisal balance dafa nekk loo xam ne ne dafa am njëriñ ci balance nit ki mënul di xëy di julli di woor di def lépp lu jullit war a def waaye buñ ko xoolee ci jikkoom nattu ko ci jikkoom daal ne accam donc loolu day wane ne ba léegi melagul ni mu war a mel ak julli bi ak woor bi ak yooyu sinon bu ko melee rek effet bi dina am dina am effet ci li xam ne mooy jikkoom ndax foofu ñu sentir li nga xam ne moom mooy douceur bi mu amee foofu ñu sentir ba yar bi nga xam ne ne mooy effet bu muy def ci nit ki foofu ñu sentir ko kon bu fekkee amagu ko rek c'est parce que yi muy def yëpp am na lu bëri lu xam ne ne dafa dafa des donc munoo dàq julli ñëpp mënoo dàq wóor ñëpp mënoo dàq def lépp loo xam ne jëfe lislaam la ba pare nga boole ko bu fekkee ñu ngi koy nangu bu fekkee jëf ju ñu ngi koy nangu forcément dina ànd ak ak ay jikko yu rafet moo tax jikko bu la të rek corriger ko ak julli c'est-à-dire julli guddi surtout jikko bu la jaaxal rek del julli guddi incha allah suñu borom tabaaraka taala nga koy ñaan ngir bu soppi la soppil la jikko boobu incha allah dina la ko soppil waaye tamit bokk na ci jikko yi nga xam ne ne eh, jikko yu rafet la moom mooy di ree maam pas bëri looy ree mais di bëri looy tàllal sa kanam bu gisee sa mbokk jullit bu la nuyoo nga tàllal sa kanam loolu àq la naka noonu tamit ak ku mun munti doon nga gaaw a tàllal sa kanam ci buñ la nuyoo n'est-ce pas nga accueillant sa kanam tàlli waaye munuñ euh, ku la nuyu rek nga xool la wala am na ñoo xam ne doo leen am doo am sax fitu nuyu leen bay ba leen di nuyu bay yaakaar ci ñoom ay reetaan ak yu yu demee noonu donc jullit bi li war ci moom moom mooy mu tàll jéem a tàllil kanamam am na ñoo xam ne nag peut-être yàlla moo leen bindee ci noo xam ne ne. Euh, gis leen au premier coup ñeme leen du du yomb mais bindin la lool waaye nit ki en tout cas ala kulli xaal dafa war a fexe ba kanamam di tàlli di gaaw a tàlli nest ci ay mbokk jullitam naka noonu tamit bokk na ci jikko yu rafet yi nga xam ne ne suñu jamono ji yu jar indiwaat la mooy ak dox ak tawaat dox mooy loo xam ne ne muy wàccee sa bopp nespa mooy ak tawaat tawaddox mooy wàccee sa bopp mooy fexe ba nga xam ne ne euh, doo rëy rëylu ci kanamu nit ñi ak doo rëy rëylu ci kanamu dëgg duñ la wax dëgg ngay rëy rëylu duñ la wax loo xam ne ne lii normalement nga waroon euh, def ñu waxtaan ci ak yow ci nu mu gën a jekkee lu mu gën a amee wor ma nga fayee leen ci li nga xam ne mooy ñàkkee teggin ak mer déedéet lool du lool du lool du wàccee sa bopp jullit da ngay wàccee sa bopp gaaw nangu dëgg gaaw a xam ne nag dëgg fii la féete kon naa dem farak dëgg donc jullit bi loolu la war a mel te loolu ku ko gën ku ko mën mu mooy lan mooy ku ku wàccee boppam ku oyofal boppam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suyu borom tabaraka wa taala dafa ne ko wax fi janaahaka mu ne ko wàcceel li nga xam ne mooy say laaf c'est-à-dire wàcceel li nga xam moom mooy say grade daraja yi titre yi lépp wàcceeku maam wàcceel say laaf tollool ak nit ñi tollool ak aji gëm yi nga waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy euh, seen diine moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikkoom loolu moo ko taxoon wàccee boppam moo taxoon euh, benn xale mënoon jàpp loxoom jël ko yóbbu ko bu fu ko neex den kenn koo xam sax day xaw a dese jàpp loxoom yóbbu ko ba fu ko neex te du kaas loolu moo taxoon nga mënoon ko gis muy dàq ak suñu yaay Aïcha ci mbedd mbedd euh, Medina yi euh, naka noonu tamit noonu nga mën a gisee ñu naan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu toogaan ak ay saxaabam saxaaba yi bu ñu reetaanee day reetaan bu ñu. Euh, noppee mu noppi n'est-ce pas ba ñuy waxtaan mu leen di déglu loolu yëpp oyof la te day toog seen biir moo tax nga gis ay xadis yu bëri yoo xam ne ne kenn bu xamagul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ci mbooloo bi foofu mu laajte ko parce que lan parce que du remarquable du nekk koo xam ne ne day solu noo xam ne dañu xam ne kee mooy kilifa bi wala du toogee noo xam ne dañu xam ne ne kële mooy kilifa bi waaye naka lay toogee day toogee tooginu ni nga xam ne moom mooy bu effacé maam wàccee boppam effacé wu devant ay saxaabam nga xam ne boo ñëwee foog nga laaj ci kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu joxoon la ko nga dog ko xam kon bu ñuy wax ci at tawaadu da ngay gis ne ne moom mooy ki gën a wàccee boppam ci mbindeef yi kon jullit bi lu ko war moom mooy lan mooy rey ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne mu nekk amul kenn koo xam ne ne dina wàccee boppam ngir yàlla loolul na suñu borom tabaraka wa taala dina ko yëkkati kon nit ki bu fekkee dafa bëgg yëkkati boppam na na euh, bu fekkee dafa bëgg yàlla yëkkati ko na wàccee boppam moo tax nga gis Cheikh Abdou Khader Jilani nit yàlla bu mag boobu radiallahu anhu wa arda mu wax na ne dama xool mboolem bunt yi nga xam ne ne dañuy jëmee ci yoonu yàlla wala jëme directement ci yàlla ma gis ne ñëpp ñu ngi ciy buuxante ba mu des benn bunt te mooy bunt boobu mooy ban mooy buntu wàccee sa bopp ma daal di jaaree ci bunt boobu daal nag yegg ci yàlla mooy lan parce que ñëpp ñu ngi buuxante ci zikkar ñëpp ñu ngi buuxante ci euh, euh, wilaaye ñëpp ñu ngi buuxante ci lu ne waaye gis naa ne buntu bële di wàccee sa bopp kenn jaaru fa man nag ma jaarale fa sama bopp daal di yegg directement ci yàlla mooy wàccee sa bopp humilité n'est-ce pas donc modestie loolu lu am solo la ci ci jullit bi bokkul nag ak fausse modestie fausse modestie mooy li nga xam ne ne nit ki da ko war a moytu di ko daw ci anam bi mu gën a mate parce que Euh, fausse modestie mooy gëm gëmloo nit ki comme si dafa modeste alors que modestul parce que yi muy incarné ak yi muy wax ak yi muy suufe suufewu bu amoon keneen koo xam dafa jóge fee wax ko ko rek da ngay gis ne da ciy mer da ciy am rancœur alors que bu fekkoon kon dëgg la ci moom du ci am rancœur nday xam ne rek waa ji lu mu wax ci man dëgg la n'est-ce pas ndax bu fekkee da ngay xëy naan man bu bon mii man bu man bu man bu saay-saay mii man bu doywaar mii bu fekkee da nga koy wax te ko amul sens ndax am na ñoo xam ne dañ koy wax mais gëmuñ ko man maa fi gën a suufe alors ko kenn bu tëlloon na leen yow yaa fi gën a suufe wala mu ne leen yow yaa fi gën a doy da ngay gis dañuy mer kon cest à que ne ñoom gëmuñ li nga xam ne moom lañ moom la ñuy wax donc wàccee seen bopp boobu waroo ko jël di ko wax ci kaw ne damaa wàccee sama bopp jëmmi wax bi ngay wax ne man damaa wàccee sama bopp loolu ci boppam rëy la loolu rek day wane ne wàccee sa bopp ak man damaa modeste loolu ku ko wax lu muy signifier moom mooy modeste goo n'est-ce ndax nekkul loo xam ne dañ koy wax waaye dañ koy incarné n'est-ce pas donc loolu lu jar a bàyyi xel la ndaka noonu tam xubbul xayri li ayri loolu li gën a jafe suñu jamono ji mooy xubbul xayri li ayri mooy nga bëgg li nga xam ne moom mooy baax yéene mbaax lu wuteeg yow maanaam keneen am lu baax nga yéene ko ko loolu bokk na ci lu gën a jafe da gis kenn koo xam ne ne day am réussite percée ci benn domaine am réussite totale yow xëy na yàgg nga ci mais amoo réussite nest pa pas au lieu nga yéene ko li nga xam ne mooy réussite boobu alalam boobu euh, nit ñoo xam na ñoo ko wër déedéet waaye da ngay nekk di ko soxore naan waaw ñu ñoo doon jànganoo nangam nangam xamul woon dara nuy laa la déedéet loolu nekkul jox doxalinu jullit loolu ku gëm yàlla dëgg doo doxalee noonu doo waxee noonu ak sa mbokku jullit sa jullit sa mbokku jullit bu amee lu baax yow da nga cee war a kontaan bu fekkee na nga da soxla même chose bi nga ñaan yàlla tabaaraka wa taala mu may la même chose parce que yàlla moo koy maye. n'est-ce donc moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ci xadis bu siiw bi ne laa yuminu ahadukum xatta yuxibba li axiihi maa yuxibbu li nafsihi mu ne kenn ci yéen du am dëggi-dëggi imaan bu mat lu dul demoo ba nga xam ne li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa mbokk jullit donc li nga bëggal sa bopp jullit na nekk li nga bëggal sa bopp waaye mënoo ne man rek naa am personnalisme n'est-ce pas égocentrique waroo ko doon sa diggante ak say mbokku jullit say mbokku jullit lu ñu am ci xéewal rek yéene leen ko neel alhamdulillah boo xoolee saxaaba yi ñoom noonu lañ doon dundee kenn daaw woon iñaan sa mbokku jullit te loolu incha allah dinañ ko gis ci deuxième partie bi ci jikko yi nga xam ne dañ koo ŋàññi naka noonu tamit ak ah, dalalatu alal alal xayri tegtale ci lu baax loolu dafa bokk ci jikko yu rafet yi mooy di tegtal nit ñi ci lu baax bokk na ci jikko yu rafet yi mooy ashukr mooy di sant di sant lañ sant ñaari parti la sant yàlla ak sant nit ñi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne laa yashkurullah man laa yashkurun mu ne doo sant yàlla fii sa sant yàlla mënul mat fii santoo nit ñi donc nit ñi nga xam ne ñoo la jàppale ci sa entreprise bi ci sa euh, kayit yi ci sa kër gi ci sa et cetera fii demoo ba sant leen n'est-ce sa sant mënul mat sa sant bi nga sant yàlla tabaaraka wa taala matagul ndax lan ndax sabab yi donc suñu borom tabaaraka wa taala da koo jaarale ci nit ñi boo buggee fi mu ne 5 millions nekkul nit nekkul suñu borom tabaaraka wa moo la koy yooral noonu directement nga jël ko waaye da koy jaarale ci ay nit mu am fu mu jaar ba ñëw ci yow. te nekkul nekkul pour rien moo tax yàlla jaareel ko noonu dafa am ay xikma yu nekk ci biir moo tax moo tax yàlla bëgg nga sant nit yooyu noonu ndax sant nit yooyu noonu en même temps sa sant sabab yi nga xam ne yàlla foofu la ko jaarale te loolu moom mooy sant yàlla ci ci jëmm ci jëmm boppam moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wax ne ku santul nit ñi santagoo yàlla sant bu mat bi nga xam ne moo moo war ci li nga xam ne mooy xéewalam yi mu yi mu yi mu la jox yooyu moom mooy jikko yi nga xam ne mooy jikko yu rafet yi te boo ko gisee boo ko déggee dangay xam ne ne comme jikko la yoo xam ne ne ku rafet xol noonu lay mel n'est-ce day yiw day bëggal boppam lu baax bëggal nit ñi lu baax yéene leen lu baax di leen tegtal ci lu baax di doxalee ak ñoom doxalin bu baax naka noonu tamit fexe ba nga xam ne ne eh, lépp loo xam ne dañ ko ci ci nañ koy gis day nekk lu baax fexe ba nga xam ne tamit nit ñi bu ñu bu tasee ak ñoom day tàllal kanamam ba nga xam ne dañ koy ñeme day nekk tamit koo xam ne day wàccee boppam kooku mooy ki nga xam ne xol bi dafa set wecc kooku mooy ki nga xam ne ne ay jikko yu rafet la am yan mooy jikko yi nga xam ne dañ koo ŋàññi mooy sifaatul mazmum mooy sifaat euh, melo yoo xam ne dañ koo ŋàññi ci nit wala jikko yoo xam ne dañ koo ŋàññi ci nit ki mu bañ ko am kon jikko yooyu waru koo am mooy contraire presque contraire yi nga xam ne moom lañ cité bokk na ci alxasad mooy kiñaan kiñaan dafa nekk loo xam ne ne day yàq jëf day lekk jëfu nit ki moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam daal di wax ci xadis bi laa tabaagadu wala taxaasadu bu leen merewante naka noonu tamit bu leen iñaanante nit ki lu mu am nga dem iñaane ko loolu ci jikko yu gën a bon ci jikko yi ci la bokk ndax kooku dafa mel ne ku gëmul yàlla du ku gëmul na yàlla moom mooy joxe ki li ngay iñaanee nit ki lan moo la tere woon yaa axi nga ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal la même chose bi moo tax mu teg ci tamit wala daabaru bu leen wanante ginnaaw u kuunu ibaadallaahi ixwaanan nekk leen ay jaamu yàlla yoo xam ne ne ay mbokk ngeen di doon maam ay frère ci lan ci jaamu yàlla mi nga xam moom ngeen moom ngeen nekk donc jullit bi lu ko war si digganteem ak ay mbokk jullitam mooy bañ leen iñaane ndax naka doon tamit yoonu saa sam bañ tere na tamit nit ki di ñee mbokku jullitam lu mu des ba mu des ñaar yi dafa wax ne ne iñaan wala ñee foofu ñee la fay la fay tekki ñee daganul lu dul ci ñaar yi kenn koo xam dafa yàlla da ko may xam-xam pas mu jël xam bi di ko jàngale guddeeg bëccëg kooku mun nga koo iñaane wala mun nga koo ñee naka noonu tamit keneen ki nga mën a ñee mooy koo xam ne ne dafa am alal bu bëri waaye alalam bi yëpp chaque guddeeg bëccëg mu ngi koy dépenser ci yoonu yàlla ñooñu jar nañ ñee mais lu dul ñooñu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jariñoo ñee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit bokk na ci njàngaleem jikko yi nga xam ne da koo tere mooy suu suu zan te moom mooy ñaaw njort parce que li ngay toog di njort xamoo lan moo ciy dëgg xamoo lan moo ciy caaxaan te su fekkoon loolu moom mooy li gën a mën a juumloo nit ci li nga xam ne moom mooy euh, li muy jàpp ci nit ki wala li muy jàpp ci benn événement ndax nit ki waroo nit ki waroo ko gis mu romb rek xamoo fu alam nga xool ko rek jàpp ne moom euh, alalam bi fee la jóge wala te yoo xamoo ci dara amoo ci dara lu la leer nga toog naan sama yaram baa ngi daw mais yow yaay kan bu seddee bien sûr sa yaram dina daw dama am ay chair de poule xam naa diw moom ay déedéet jullit warul mel noonu jullit warul ñaawee noonu njot ci ay mbokk jullitam nit ki warul ñëw tiis la ay soxlaam wax la nga naan noonoo man bàyyi ma ñaaw njortot parce que wóorul déedéet nit ki warul mel noonu ci mbokk jullitam n'est-ce pas donc loolu jar a bàyyi leen di moytu ñaaw njort ndax couple yu bëri fi mu ne boo xoolee couple yu bëri lu koy tas mooy ñaaw premier fi muy tàmbalee mooy ñaaw njort ci sa conjoint jëkkër ji ñaaw njort ci jabar ji jabar ji ñaaw ci jëkkër ji ay copain wala ay ay xarit n'est-ce pas di ñaaw jékki-jékki ñaaw njort dugg seen diggante donc seytaane mooy dugal yooyu ci diggante yi rien que pour nit ñi euh, am ñaaw njort seen diggante ngir ñu mën a tas donc loolu lu jar moytu la kon naka noonu tamit aljahru aljahru mooy lan moom mooy gàddaayante meroo maanaam këjante yonent bi sallallahu alayhi tere moo tax mu wax ne laa yax euh, laa yaxillu li muslimin an yaxjura axaahu fawqa salaas layaali mu ne dafa xaraam ci ay jullit n'est-ce dafa xaram ci jullit mu gàddaay mu këj maanaam ñun këj nañuy wax wala aju n'est-ce suñu langage mooy nga bañ a waxateeg gàddaay sa sa sa sa sa sa sa sa mbokk jullit lu ëpp ñetti ñetti gudd loolu dafa xaram moo tax loolu lu a moytu la du jar a bàyyi xel la. leneen li nga xam ne ne tamit euh, dafa bokk ci euh, jikko yu bon yi mooy lan moom mooy kon waroo di bëri kon loolu boo ko déggee da ngay jàpp ne da ngay xam ne ne bokk na ci jikko yu bon yi mooy di bëri looy euh, gàddaay ay nit indi trois nga gàddaay ku wax nga gàddaay. n'est-ce pas donc loolu jërë moytu la maam gàddaay su ma ko waxee moom mooy merewante këjante ku nekk wan sa moroom ginnaaw loolu jullit da ko war a moytu beneen jikko bu gën a bon ci jikko yi tamit bokk na ci zu waja xëy ni mooy nga nekk borom ñaari kanam nest pas ñun olof li ñu woyee naan xaw ma naa fekk nañ koy wax xaw ma en tout cas ñaari kanam mooy double fas mooy boo ñëwee ci ay nit nga am noo mel boo moo lim boo jógee mel neneen moo tax yonent bi sallallahu alayhi sa sallam wax ne inna charra an naas zu wajhayni mooy ñu bën a gën a bon ci nit ñi mooy ñan mooy borom ñaari kanam borom ñaari xar kanam moo gën a bon ci nit ñi allazina mooy ñi nga xam ne yati haulai bi wajhi bi waj eh, bi mooy ñi nga xam ne dañuy ñëwee dikkee ak benn kuréel ci benn kanam wa haulaay ak beneen eh, kuréel bi waj wajhin ci beneen ci beneen kanam nest donc loolu moom mooy li nga xam ne ne mooy lu aju ci borom ñaari kanam boo demee comme lu olof di wax naan euh, xaw ma nan lañ koy waxee euh, woote kabooy xaw ma lan affiché indo yooyu noonu am na nu ñu koy waxee donc moom mooy boo demee ci kuréel bee wan leen ne man jullit laa xaqan bu gëm yàlla laa ku gëm yonent bi laa noo aw ma ci sago et cetera boo toogee ak ay yéefar nag mooy ñoo xam ne ne bëgguñ lislaam bëgguñ kii nga toog naan gars yi kay ay extrémiste ne gars kay lu bon rek nañ kii nangam wala nga naan ustaas yi ay daara nañ kenn xamul donc loolu moom mooy zul wax xay ni naka noonu tamit dama ko jël rek noonu exemple mais mun na nekk ci lu bëri mooy koo xam ne ne surtout jigéen yi dañ koy defante boo demee ci kee wan ko ne man sa xarit laa man aw ma benn problème ak yow ngeen toog di jëw benn nit moom bu demee wala yow boo demee ci beneen nit ki indi fa tamit beneen karab wan ko ne man yow rek laa àndal et cetera te diw moom àndut ak yow genre yooyu donc zul waj xëy ni dafa nekk jikko boo xam ne ne bu jara moytu mooy ñaari borom ñaari xar kanam moo double loolu lu jara lu moytu la mooy li ñuy wax tamit paaka ñaari boor voilà olof loolu la paaka ñaari boor loolu lu jara moytu la nest lu jara moytu la ci bokkul ci jikko yoo xam ne jullit da ko war a jikkoo bokk na ci tamit ci jikko yi nga xam ne ne baaxul dafa nekk jikko yu bon mooy su aalu naa si am waal am waalahum moom mooy di laaj nit ñi seen alal loolu lu jar moytu la. laaj nit ñi lekk alal nit ñi ci ay caaxaan ci ay neen loolu nit ki da ko war a moytu dafa nekk loo xam ne nit ki da ko war a daw ndax ah, nit ñi mun la neexee mun nga leen triande di lekk seen alal et waaye bul fàtte ne am na buur boo xam ne moom bu maanu bu fi nekk boo xam ne ne li nga nekkee guddi ak bëccëg moom xam na lan la kon loolu boo ko déggee. définiral nañ la lan mooy jikko yu baax yi defe définiral nañ la lan mooy jikko yu bon yi nga xam ne jullit bu nekk du ko war a moytu kon yow yaay xool ban façon jullit nga bëgg a nekk bu fekkee jullit boo xam ne jikko bu bon nga nga bëgg a nekk melo yaa ngi noonu bu fekkee nag jullit boo xam ne ne jikko yu baax rek nga bëgg deewaale jikko yu baax rek nga bëgg a yor wax nañ la melo yi nga xam ne ne moom nga war a melowoo mooy melo yi nga xam ne yontu sa sa moom la melo woon moom la jàngale